واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen seen CMT TV ñëwaat nañ ci suñu émission bu mag boobu di gàggantiku gàggantiku nag ñu ngi koy amal ajuma bu njëkk ci weeru tubaab bu nekk ak bu ñetteelu ajuma bi incha allah ci lay am kon dañuy ànd ak Serigne Cheikhouna ci waxtaan yu am solo yi ak tomb yi nga xam ne fas nañ ko yéene laaj ci gàggantiku tey jii nag ñu dalal Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud fas yéene koo laaj laaj yoo xam ne dañ ciy gàggantiku lu aju ci laab moo xam njàpp tiim ak sangu euh, ak li koy yàq ak yi nga xam ne mooy yi ci aju yooyu lañ ko fas yéene laaj moom Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud kon Serigne Cheikhouna ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. Serigne Abdou euh, ngi lay fay di nuyu itam mbokk yi nga xam ne ñoo nuy bàyyi xel ak fu ñu mën di nekk di ñaan rek yàlla defal nu jàppandal ci waxtaan yi ba nu wax fu lu jub am njariñ defal nu jàppandal itam ba fi am njëriñ man ko jëriñoo. jërëjëf kon suñu laaj bu njëkk mooy lan mooy laab ci boppam lan mooy laab ak euh, yan sar yan surut la ci lislaam indi ak nan lañ koy defee. waaw laab sëriñ Abdou Lahad day ñaari xeet am na laab goo xam ne laab gu maanaa la ak laab goo xam ne nag laab guñ guñ mën a mën a teg bët la laab gi ñu mën a teg bët mooy nit ki bañ a taq sobe yaramam bañ a taq sobe ay yéreem bañ a takk sobe fi mu toog itam bañ a takk sobe loolu xeetu laab la laab googu dañ koo soxla waaye am na laab goo xam ne laabug maanaa la moom goo xam du sobe suñuy gis waaye mbirum maanaa la laab googee moom njàpp moo koy maye walla sangu walla tiim bu dee laab gi nga xam ne nag sobe suñ maa teg bët la walla gi nga xam ne gu maanaa la laab yooyu yëpp fiñ koy soxlaa mooy ku bëgg julli wala ku bëgg a téye alquran wala ku bëgg wër kaaba gi yett yett yi béréb yooyu ci lañuy soxlaa laab muy e, ñaari xeeti laab yëpp rawatina bu dee julli ak e, jàng alquran e, ñaari xeeti laab yëpp bu dee wër kaaba gi moom laab nga xam ne laabu maanaa la moom lañ ci soxla. Hmm. jërëjëf kon mu mel ne e, yi nga xam ne moom la ñuy mooy moo aju ci ponk yi ñuy ponk jaamu yi yëpp rek laab da koy soxla kon su ko defee nan lañ koy defee moom laab moo xam mm, nga ñëwal ñu rek ci laabuk jàpp wala ak sangu ak tiim. laab googu kon moom laabuk maanaa laab googu moom day am koo xam ne sangu mooy tax mu laab. kooku mooy koo xam ne dafa ame janaaba li ñuy wax janaaba wala jigéen joo xam ne dafa gisoon mbaax bam jeex ñoom sangu farat lañ war a def sangu faratam mooy tax ñu laab loolu la ñuy tuddee sax laab gu mag lañ ko tuddee laab gu mag ndax li koy sangu moo moo gën a mag njàpp moo moo gën a yaatu njàpp moo tax laab gi sangu di may ñu koy faral di laab gu mag kon ki nga xam ne dafa amee janaaba janaaba mooy góor ak jigéen seq dara wala bu seq amut itam góor gi am na lu génne ci moom loo xam ne euh, bànneex moo tax mu génne ci moom boobaa tam day war a sangu jigéen ji itam noonu bu fekkee seq nañ dara itam moo xam dara génn wala dara génnut dañoo war a sangu ñoom ñaar ñëpp bu dee jigéen ji itam gis na mbaax ba mu jeexit dafa war a sangu moo xam mbaax gi muy gis weer wu ne wala mbaax gi nga xam ne ku am doom moo koy gis muy li ñuy tuddee mbërëg euh, yooyu kon yépp dañuy euh, laaj sangu sangu farata la ñuy wax nag ndax sangu guddul farata dafa am mm-hmm. sangu koo xam ne sunna la ak sangu ko aada rek waaye sangu sunna am na sangu aada rek am na sangu farat am na laab yi sangu nag <coughs> ci ndox mu laab lañ koy defe mooy ndox moo xam ne soppikuwut dara soppiwu ko dara soppiku soppiwut cafkali dara soppiku soppiwut melaw yi muy couleur bi dara euh, soppiwut itam xet gi ndox mu mel noonu lañ mën a sangoo bu dee njàpp moom it ndox mu mel noonu lañ koy mën a defe bu dee sangu nag moom cër yëpp cër yëpp liy feeñ ci yaram yépp la ndox mi war a àgg fépp foo loxo mën a àgg itam ñu bomb ko ku def loolu sangu na kon dafa am ñaari anam yiñ ko mën a defe anam goo xam ne gu gën jàppandi la ak gana anam gu ëpp teqantal gi gën a jàppane mooy gii ma wax rek ma ki nga xam ne daal bëgg naa sangu bu demee ci ndox mu laab mu fexe ba yaram wi yépp ndox mi àgg ci te itam fu loxoom jot mu bomb ko boole koog yéene ku def loolu sangu na farat muy yoon wi nga xam ne moo gën a yomb waaye nag yoon wi nga xam ne moo ëpp teqental ku ko man moo gën waaye ku ko mënul nag mën naa yem ci yoon wi yoon wi ëpp teqental moom kii sangu bu amee ndox mu laab day tàmbuli njëkk raxas fi sobe taq ci moom bu noppee mu jàpp jàpp ni ñuy jàppe rek kuy julli ni muy jàppe njàpp moomu nag bu ko neexee cër bu ne benn yoon rek la koy raxas bu dee raxas la bu dee yeneen yëpp itam ñuy def ñett itam sañ na koo def benn yoon rek bu noppee ci njàpp mi mu raxas bopp bi dañu sotti ndox raxas ko ñetti yoon raxas nopp yi raxas wetu ndeyjooram raxas wetu càmmooñam raxas ginnaawam raxas kanamam détail yooyu ku ko mëne noonu moo gën waaye ku ko mënewut noonu itam nag man na bu ñëwee ci ndox mu laab rek mu tànk ndox fexe ba yaramam wi lépp ndox àgg ci dafa loxoom mën a àgg itam mu bomb ko anam yooyu kon la ñuy mën a bu ànd ak yéene rek sangu na sangu na sangu na farata laab na laab googu may na ko mu julli lépp li nga xam ne dafa ajo laab rek may na ko mu def ko moo xam ku jigéen ju jóge ci mbaax la moo xam ku amay janaaba la loolu kon foog naa mooy sangu geneen laab gi ñuy defee ndox mooy njàpp njàpp itam niñ koy defee foog naa ne moom lu ñu bari xam la moom it da yéene boo yéenee nga euh, as ndox ci sa loxo nga gàllax nga raxas say loxo ba noppi say loxo nii raxas ko ñetti yoon gàllax ndiku ñetti yoon xëcc ndox mi sabakan génnewaat ko ñetti yoon raxas saxar kanam ñetti yoon raxas say loxo ba ci conc yi njëkke ndeyjoor teg ci càmmooñ ñetti yoon massa sa bopp mooy tooyal ndox rek waaye doo sotti ndox mu ci bopp bi da ngay tooyal ndox rek massa ko ci bopp bi nii dem dikkaat tooyalaat loxo yi masa nopp yi boo noppee tànk yi ba ci dojor yi jiital bu ndeyjoor teg ci bu càmmooñ loolu mooy njàpp njàpp itam euh, ki aajowoo julli ki bëgg julli mbaam bëgg wër kaaba gi wala mu bëgg laal alquran te lu waral sangu amut ci moom kooku moom bu jàppee rek laab na ki def yooyu nag te lu waral sangu am ci moom moom day sangu waaye bu sangoo itam yóbbaale na jàpp sangu moo xam sangu mi nga jàppee ci biir la moo xam sangu cangaay li nga xam ne jàppoo ci biir sax danga nga fexe ba ndox mi ak sa yaram yépp rek cangaay loolu itam dana maye nga julli ci dana maye nga def ci lépp loo xam ne dafa laaj laab ñaar yooyu nag ku mu war te mënu ko sangoo ko war waaye mënut a sangu wala jàpp ko war waaye mënut a jàpp ñàkk man gi mooy benn daa amul ndox mun ko defee wala am na ndox mi waaye daa am ngàntul jëfandikoo ndox mi boobaa itam day tiim nag nit ñu bari xëy na duñu ràññale loolu waaye ki sangu war ak ki jàpp war yëpp ñoo yem ku ci ne la ko war bu ko munta def day tiim te tiim yi itam mel ni tiim rek la mel ni tiim mi rek ki sangu war te mënu ko mel ni tiim mi muy tiim mooy tiim mi nga xam ne ku jàpp war la te mënu ko te bu xasee def moom itam la ko càngaay la doon may njàpp tiim li may nag ko la ko njàpp doon may itam tiim mi eh, may nag ko tiim nag moom lu jàppandi la moom it nit ki day ñëw rek ci suuf su laab suuf suuf lay doon nag waaye du ko def ci karo du ko def ci tàppi du ko def ci basang waaye suuf lay doon walla lu bokk ci suuf loo xam ne nit soppiwu ca dara lu mel ne xeer moo tax ñuy jël ay doju naan doju dën dënn yooyu ndax xeer la xeetu xeer bu mën doon rek bu mën doon rek ndax suuf la rek suuf rek mënees na cee tiim moo tax nit ñi ngir lu yomb ñu wut aw xeer di ko di ko di ko ndax léegi béréb yi ñu nekk léeg am fi suuf day jafe moo ñu wut ay xeer di ko yoraale nga xam ne boo bëggee tiim mën cee tiim waaye nag de fekk loo xam ne daal nit soppiwu ci dara nit soppiwu ci dara lu mel na ay karo ci suuf la jógee ci cosaan waaye dañ cee soppi dara dañ ko liggéey ba mu soppiku du mën a tiimati si jaada du ko man tàpp yi basang yooyu yëpp duñ mën a mën a tiim boo àggee suuf soosu nag nga def nii señaar ñaari loxo rek teg ko ci boo noppee masaa ci sa xar kanam tegaat ko ci masaa say loxo nii ba ci coon ci rek def ko nii ak nii mu jeex loolu mooy tiim mu ànd ak yéene nag ndax lu ne day ànd ak yéene ki sangu waroon te mënu ko noonu lay def ki jàpp waroon te mënu ko itam noonu lay def te bu ko defee la ko sangu doon may dana ko sañ bu dee jàpp ko tam la ko jàpp doon may dana ko sañ. ñun ñëpp yi tax nit di tiim. yi tax nit di tiim nit njëkk mooy bañ am ndox. Hmm. ndox muñ mën a laabe. Hmm. te mooy ndox mi ñu waxoon ne dara soppikuwu ci. walla am ko waaye mënees koo jëfandikoo. Hmm. benn nit ki dafa amug wéradi koo xam ne bu jëfandikoo ndox wér da koy lor wér digi mën naa yokk wala mu yéex a wér loolu dañuy wax wala sax amutug wéradi waaye ndox mi mën na koo sabab jëfandikoo ndox mën na koo sababal ak wéradi booba dañ naan ko kon da am ngànt na nga tiim wala ndox ne fi moo xam ne bariwut te am na boroom bakkan bu ko aajowoo ci naan ci naan ba naanut ba këram walla wala lor wala lor bu métti xaj moo xam muy nit moo xam muy rab borom bakkan rek bu ko nit aajowoo nit ku war a naan wala ñu war a naan ñi ngi fi luñ mën a jàppee ngi fi wala luñ mën a sangoo waaye nag buñ ko sangoo maanaam jàppe ko ñii duñ am luñ naan te buñ naanut daañ ci jël lor tar moo xam nit la moo xam rab la borom bakkan la rek boobaa dañ naan kon na bàyyi sangu na bàyyi njàpp te li fi amakus néew ki ki aajo woon naan naan ko wala tam ngànt la ngànt yooyu daanaka ñoo gën a fés yi yëpp day dellu ci ñàkk mën a jot cim ndox wala ndox am fa mënoo cee jot mënoo cee jot boobaa itam moo ko fi ndox amul rek ñooyam kon ndox moom yan ci a laabe mhm. mooy menn mi rek mooy menn mi rek mi nga xam ne dara soppiku ci mhm. ndox ñetti ñetti ñetti ñetti yii bu ci lenn soppikuwut lañ naan ndox mu mën a laabal la xet gi soppikuwut cafkali soppikuwut melo bi muy couleur bi soppikuwut yooyu bu ci lenn soppikuut rek ndox mu mën a donte ay ñam yu ñuy lekk ko soppi bu ko yenn soppee ci yooyu mm. du mën a laabat du mën a laabal duñ ci mën a ci mën a dañ ko a jëfandikoo nag ci leneen mm. ci lekk ak naan ak ay fóot ak yooyu yëpp dañ ko man waaye nag duñ ko mën a jëfandikoo ci euh, sangu walla jàpp lu dul ne la ko soppi day lu taqoo ak moom loo xam dafa dëkk ak moom lu mel ne euh, ndox moo xam ne ci euh, tiwoo yi lay jaar di ñëw ci robinet yi léeg-léeg dana am lu ne ci tiwoo yi loo xam ne dana soppiwaale dana soppi dara ci ndox mi loolu du wàññi dara ndax loola daa taxoog moom taxoo goo xam ne yow mënoo ci dara waaye jaxasoo goo xam nag moom du jaxasoo gu demee noonu bu amee ba soppi ku am ca des ko mën a sangoo des ko mën a des ko mën a jàppe lu dex wala siyaan na cee laab. mënees na yooyu yëpp mënees na cee laab yooyu yëpp mënees na cee laab ndax yooyu yëpp seen ndox noonu la demee di fekk soppiku amu ci rek géej moom dara mën koo soppi te dara mënut soppi ndoxam moom ba du laab. waaye bu dee ay siyaar nga xam dafa tëju mooy ndox mu tëju mu dem mu demut ndox mu demut moom man des na koo soppi bu soppi ko baax na waaye bu soppi ko euh, du baaxati bu dee géej ak dex na nga xam ne ñoom dañuy daw ndox yi daw moom dañuy wax ne dara du leen soppi moom manes na cee laab kon mu mel ne Serigne Cheikhouna euh, leer na ni ñu jàppee ni ñu sangoo ni ñu tiime kon léeg nga gis am ñu ci yokk yoo xam ne bokku ci te euh, kon lépp lu sëriñ Seexuna indiwul rek bokkul ci jàpp da ngay gis ñu jàpp ba noppi jël seen cati baaraam yi def ko nii di ko di ko di ko di ko di ko <laughs> mel ne dañ mel ne bu ñu ko deful njàpp mi bokku ci te loolu bokkul ci njàpp waaw ak yëkkati seen loxo bi nii bokkul ci njàpp waaw yaakaar naa. Mhm. bu noppee. bu noppee. Mhm. bu mhm. jàpp ba noppi. Euh, dana tudd yàlla xeer tudd yàlla. loolu nag ku ko def ku ko def nii ni wàññiwul dara ku koy def bi nga koy tudd bi nga wax ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu ku koy def bi koy wax def mu def nii moom am na cosaan loolu am na cosaan moom ndax lii ne dañ ci jublu kenn ki rek yàlla mi nga naan wax wahdahu laa sharika lahu ji war ne moom rek loolu lañ ciy jublu waaye def ko moom kese kese rek moom du du du du santaane waaye li ñuy wax booy wax nag defaale ko moom. Mm-hmm. mooy da ngay li ngay wax. waaye wax ji lañ santaane. ku jàpp mm-hmm. ba noppi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa mm-hmm. ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh am na yuñ ci mën a teg waaye ku yem ci loolu tam baax na loolu moom santaane nañ ko euh, yonente bi nee na ku ko def loolu day day day day day day sababal nit ki àjjana jàpp njàpp mu mu mu tege ci yoon ba noppi wax loolu day sababal nit ki àjjana. macha mu mel ne tamit da gis suñu bokki jigéen ñi ak kii tiim moom dafa mel ne dañ ko yombal te ni nga waxe mooy kawuk sa jaada kawuk karook suuf su nekk ci kaw loolu maanaam suuf lañu war a tiimee wala xeer wu cosaanoo ci suuf mm-hmm. xam carrière wala loju dën mm-hmm. waaye gis nga ñu bari ñoo xam ne dañuy jékki-jékki rek tiim ci kaw karo wala seen basang gu ñu julee wala dara te loolu du tiim gi du baax loolu tamit lu lu am solo la kon su ko defee laaj bu mujj bi mooy ginaaw boo ñu leeralee ñetti ponk yooyu nga xam ne moo làmboo laab léegi lan moo ko yàq. Hmm. li koy yàq moom euh, jàpp lañ naan am lu koy yàq. Hmm. jàpp euh, ki nga xam ne itam daa waroon a jàpp te te te mënut a tax mu tiimit hmm. kooku itam tiimam am na lu ko yàq li yàq ñàkk da ko yàq waaye sang moom dara lu koy yàq. ko xasee moom sag ma jeex na waaye nag bu bu luy bu luy yàq njàpp xewee ci sangu ba noppi ak bu sangoo ba noppi sax du mën a julleeti moom waaye cangaay la moom baax na kenn du sanguwaat maa amul loo xam day tax ñaan na sanguwaat bu dee jàpp nag dañ ñaan na nga waaye ki xam ne sangu na ba noppi waaye luy yàq njàpp xew na ci moom kooku kon du càngaay la du ko mayete muy muy julli wala muy téye alxuraan wala muy wër kaaba gi ki war jàpp nag moom itam bu loolu xewee ci moom moom day jàppaat kon ki war sangu itam day day jàppaat kon yooyu nag niñ ko xamee rek eh, mooy yi faral di jóge ci nit gaanuwaay ak eh, dem ginnaaw kër ak ngelawal yooyu nga xam ne moom daa tax foog nit yooyu yëpp ku laab ba noppi bu xewee ci moom jàppam toj na kon mooy bu bu waree defaat lu laaj laab day jàpp bu ko bëggee defaat day jàpp. même tiim itam loolu la koy toj lu yàq njàpp day yàq tiim lu toj njàpp day toj tiim la cee dolli ku mooy yeneen yi génn ci nit rek lu mel ne man yu bu génnee ci nit moom itam ginnaaw bu jàppee ba noppi te anam mu génne du waral sangu kon day jàpp rek bu dee waral sangu nag day sangu. day sangu moom itam euh, bu dee tiim li yàq njàpp da ko yàq waaye dañuy waxit ne li taxoon nga tiimit la la la mayoon nga tiim bu dañee bu dañee moom kon doo mën a wéyati di jëfandikoo tiim loole kon da ngay da yàq te moom itam da koy toj da ki nga xam ne daa amutoon ndox moo tax mu tiim waaye ndox am saa bu ndox amee rek kii moom loolee dañ naan yàqu na kon lu mu bëgg a defaat day jàpp ndax am na lu mu jàppee loolu mooy ci njëriñ ñoom noonu lañ koy waxee am na ñaan nag ñoo xam ne ñoom bu xasee tiim rek am na lu ko may mu tiim ba tiim ba noppi rek fii ak defut lu yàq njàpp rek dañ naan tiim na itam baax na lu ñuy wax naan boo ko boo ak julli gi la moom ci ngër mi mm. ci ngër mi dañ naan tiim euh, day takkoo ak jullik farata gi tax ngay tiim jullik farata gi ki tiim wurta tiim def def julli lu dul farata ci misaal ba noppi bëgg caa teg farata ci tiim ci tiim li rek kon day tiimaat waaye farata ji moom daa war a sësoo ak tiim wurta tiim ba noppi tam def dem dox yeneen yitte ba noppi ñëw daal di bëgg julli farata bu dee nag eh, julli guddul farata wala muy jàng alquran moom téye alquran nit mën naa tiim julli farata ba noppi teg ci julli yudul farata wala julli farata ba noppi téye alquran waaye nag mënut a jiital yooyu ba noppi teg ci julli farata moom julli farata la ñu wax daa war a sës moom daa war a taq taqaloo ak tiim eh, nga xam ne nit ko da koo def ngir julli. bu dee góor wala jigéen am na yeneen yuy toj njàpp yu bokk teg yi génn ci moom walla yi ëpp solo mooy yooyu xëy na lu naan euh, jonjoo hmm. jonjoo góor ak jigéen bu hmm. dee ci ngir ñi jonjoo góor ak jigéen mooy seeni cër laalante lu mën di laalante seeni cër rek hmm. bu laalantee nag dañ naan bu dee ci ngir ñi dañ naan lay tax mu yàq njàpp mooy day fekk ñoom ñi laalante koo ci xam ne da caa jubloo amee bànneex da ko caa jublu kon moom jàppam yàqu na bu dee ñoom ñaar ñëpp ko jublu ñoom ñaar ñëpp seen jàpp yàqu na bu fekkee itam am na ko ci amee bànneex moo xam jublu na ko moo xam jubluwu ko moom it jàppam na bu dee ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp la seen jàpp yàqu bu dee kenn rek moo ko ci amee itam te kenn jubluwu ko ci woon it kon kooku a njàppam yàqu kee nga xam ne jubluwu koon te amu ko moom njàppam yàquwut ci ngir mi yeneen ngir am na yeneen ci waxtu yu mel ci wàllu boobu bu dee ngir moom lii bu fekkee daal nit ki yëkkati na loxoom ngir teg ko ci moroom ci soxnaam jublu ci bànneex njàpp mi day yàqu bu ko jubluwut am ko ci it njàpp mi day yàqu wàllu mhm. li ñuy faral di wax tamit ci ne nit ki su laalee awraam ci yenn cëram yooyu mhm. dañ naan bu dee góor lii tànkam lii nii tànkam lii bu ci laalee awraam te dara doxul te dara doxul ci diggante bi mhm. wala lu tal doxul ci diggante bi mhm. lu tal doxul ci diggante bi kon njàppam da yàqu mhm. bu demee woon noonu nag du yàqu bu dee lu mel sa kaala gii rek kon moo dox digganteem ak awra yi kaala gi dinañu seet ndax dañ jàpp nañ ko lu talam déet dañ koy comme naa lu tal moom du neex a du neex a misaal waaw hmm. na ci ci kii lay dellu ci aada lay dellu ci aada lay dellu hmm. xam ne lii tal nag lu tal lañ ko jàpp jàpp nañ ko lu tal hmm. ci aada lay dellu te mm-hmm. dafa mel ne waxtu yi jeex na kon euh, sëñ Seexuna euh, gàgganti nañu ci tomb yu am solo muy làpp njàpp tiim sangu farata jigéen ñi ñu bari naan ko sangu set euh, leeral nañu ko bu baax a baax ni nga xam ne mooy mooy li ko waral ci aada ak ci maanaa li koy yàq tamit ñëw na ci bu baax a baax ak niñ koy defee kon su ko defee dañ lay bàyyi nga joxe sa kàddu yu mujj kàddu mu mujj dama ko jëlee ci li nga waxoon ne am na ñoo xam ne rawat na ci jigéen ñi mm-hmm. dañoo woyofal mbirum tiim ba dañ koy def nu leen neexee rek mm-hmm. loolu nag li am <coughs> li solo mooy li nga tàmbalee ba tey ne li ñuy waxtaan dafa mel ne lu mm-hmm. lu lu woyof la waaye diine dara woyofu ci rawatina nag laab ndax la ci aju day lu diis julli day lu diis moom julli woyofu dafa diis te laab da cee bokk ci sart yi tax mu wér moo tax mu doon lu jara jox yitte mm-hmm. bañ cee sàggane lenn bañ cee fa lenn mm-hmm. bañ cee doydal lenn mm-hmm. noonu ko sëñ bi jàngalee ci tasawudu sixaar nit ki daa war a xam lu muy def daa war a xam attaya ak am nañu àgg sax ci borom xam xam-xam ñee bu xam xamul atte yi sax la muy def baaxut donte xëy na moom fa mu gën a jëm mooy ne loolu ñu koy wax dañoo bëgg a nit ñi rek dëgg-dëgg ngir ñu yittewoo seen i te xam àtte seen diine waaye lu lu mën di xew moom day lu nit war a jox yitte mooy luñ jàpp ne lu lu lu lu woyof la lu woyof daal lu woyof amu ci lenn lu nekk itam defe ko nañ ko diglee mooy tax nga jële ci njariñ nit ki du dem ci yittee bopp ci xalaati boppam rek mu ci mu ci mu ci ci kii rawatina wàllu tiim sëñ bi wax na ci lu doy waar mooy ki nga xam ne day tiim ci lu dul sabab bu ko maye tiim ci lu dul bu ko maye kooka moom bakkaar lay jële ca ca la muy def ndax dafa mooy day mel ne mi ngi julli te laabut ndax lim jàppee laab du laab ci moom ndax amul sabab bu ko may mu tiim ki nga xam ne sa tiim da koy laabal mooy ki ki am euh, sabab bu ko may mu tiim moom la tiim di laabal kon kii tiim te amul sañ-sañu tiim day mel ne la muy julli yëpp julliwut ci cig hmm. te loolu nag kon yàlla na ci yàlla musal euh, moo tax lool sëñ bi wax ne hmm. euh, ak mbugal la cay jële loolaa ko waral nga xam ne day tiim te amul sabab bi tax mu tiim kon yu njara daal jox yitte la bañ cee xeeb dara bañ cee woyfal dara bañ cee sabantal dara hmm. jërëjëf kon mën ngaa tàggatoo xanaa di leen sant yéen di leen sant ci taxawaay bi ngeen di taxaw mooy muqaddamatul xidma ci leeral la nit ñi lépp leen di jëriñ ci seen mbiri àddina ak seen mbiri àllaaxira ñu bari dañaan diine diine ak diine ak àddina amut waaye di àddina ak àllaaxira ñoo am mm-hmm. diine mooy mooy mooy yéwénal ñaar yëpp mm-hmm. diine yéwénal àddina mooy yéwénal àllaaxira kon ci diine ngeen di taxaw nit ñi ci lu yéwénal seen àddina ak seen àllaaxira loolu dañeen ci sant rek di ñaan yàlla mu gën leen cee jàppale sant itam mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi doon bàyyi xel ci waxtaan wi di ñaan yàlla defal na ci e, njariñ tan njariñoo ko itam te ñëpp rek gën a jox yitte daal seen mbiri diine di ko luñ cee def ñu teg ko ci xam te bañ koy teg rek ci làmbutu wala ci wéye njort wala wéye coobare rek hmm. jërëjëf sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud tey ji moom lañ àndandoon ci suñu émission bu am solo bii di gàggantiku eh, ak tomb yi nga xam ne moom lañ ko doon laaj moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko di ko gërëm di sant it eh, Serigne Abdou Khadir mi réalise émission bi ak sunu caméraman Serigne Fallou di leen jox eh, di leen dig daje dama waxoon di leen jox dig daje am ku dégg wolof ku ma corrigé woon kër waaye ñu ngi leen di dig daje ci beneen tomb ci seen émission gàggantiku ci biir ñëw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa